ngeen ci ànd ak seen mbokk Alioune Sall ginnaaw bi seen taal subhaanahu wa julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa ñaan jàmm ci réew mi ak réew yi ko wër jaajëfal Oustaz Alioune Mbaye mi nekkoon ci jotaay bi ñaanal ko tawfiix sutura ak ciraanga ak poche yi def dara ñaanal Oustaz Momar Seck yàlla woyefal yaram ba ba mu del jàmm ci groupe bi mbokk yi démb lañ dal suratu ar tabarakallahu di surat numéro cinquante cinq ñëwoon ba toll ci aaya ñaar waaye niñ koy baaxu ji defe mooy jàng al ayat dóor ñëw ci jéem a firi ak jéem a tekki aousubillahi min asheytaani rajim bismillahi rrahmani rrahim arrahman allama alquran xalaqal insaan allamahul bayaan alchamsu walqamaru bi xusbaan wannajmu walshajaru yasjudaan walsamaa rafaaha wa wadaca almiisaan allaa tatgaw fi lmiisaan wa aqimu alwasna bilqisti wala tuxsiru almiizaan wal arda wadacaha lil anaam fiiha faakihatun wannaxlu daatul akmaam walxabbu dul xasfi warrayxaan fabi ayyi aalaa'i rabbikumaa tukazzibaan sadaqallaahu al-aziim wa ballax rasuluhul karim wa nahnu ala ma qaala rabbuna wa mawlana min ash-shahidin allahumma ij'al al-qur'ana lana fi dunya qarina wa fi l-qabri mu'nisa wa fi l-qiyamati shafi'a wa ala sirati nuura wa ila al-jannati rafiqa wa baynana wa bayna sitran wa hijaba wa ila al-khayrati kulliha dalilan wa imama bi fadlika wa juudika wa karamika ya akramal akramin mbokk yi yàlla jàmm yàlla nekk ci ak seen njaboot koor gaa ngi dem yàlla ñu fi bàyyi buy dil siwaat yàlla ñu fi fekk koor gaa ngi dem yàlla ñu fi bàyyi buy dil siwaat yàlla fi fekk ñu fi fekkoon daaw te fekku leen firan ñi ci tukki yàlla ñu bés ci jàmm te indi dara ñu fi fekkoon daaw te fekku leen firan ña ca tawat yàlla na borom bi fëgg seeni bopp bañ dellu ci seen njaboot ñu fekkoon daaw te fekku leen fi ña ca faatu yàlla na borom bi yërëm leen te boole ca Aline fay ak soxnaam sa waaw tarkal la boole ci ñi ngeen xam te xamuma leen ak ñi ma xam te xamu leen leen te boole ci yaay Maodo ak meer sogg ma ca gee ngi new mbokk borom bi day lim ci saar wi xéewal yi mu defal doomu aadama bu limee ba mu nekk ab list mu tëje ko fa bi ay ala i rabbikuma tukazzibaan yii ma lim nii bu ngeen ci miim ban ngeen ci miim ndax yii ma lim nii am na bu ci americain yi def wala chinois yi mbaa japonais yi wala africain yi wala européen yi bu ko masaana wax ne yii yëpp lu ngeen ci miim malaaka yi ne miimuñu benn nit ñi ne cell ba yonent bi ne saaba yi waa yéen sunu borom de su ne bu ngeen ci miim malaaka yi ne miimuñu benn yéen ngeen ne cell du ngeen wax li ñuy wax ndeysaan miimuñ ci benn yaa yaa rasulallah miimuñ ci benn yépp borom bee tabaaraka wa taala ñu xoolee ci tàmbali bi ni borom bi lënkalee miim ak nuun ñaari mbokk yooyu miim ak nuun miim ak nuun ak bëri ci ndiggante sii waaw xarfu miim ak xarfu nuun ndax bi mu ne arrahman nuun la jël allama alquran nuun la jël xalaqal insaan allamahu albayaan ashamsu bi xusbaan wan najmu wastajaru yasjudaan mook moom mook moom ba agsi wal arda wadaaha lil anaam mu jël miim waaw fiiha faakiatun wan naxlu daatul akmaam mu jël miim ne fa ñukk miim ga nag daal di jël nag noonu ba nim àgg ci fa bi ay alaay rabbikumaa tukazzibaan tax maa ngi seen alaaji dooru si la ndeysaan di di tollale tafsir beeg alxuraan ji suuratu raxmaan ak ak i joxoñ ak i dessin <laughs> xamu nu mu ko defee noonu waaw yàlla sàmm ñëpp yal na yàlla sàmm ñëpp arrahman muy lim nag xéewal yi mbokk yi doore ko ci àllamal quraan waaw yi doore ko ci àllamal moo tax kum def ci yow alxuraan mbaa xam-xamu alxuraan kenn gënatula la am yow ci sa bopp kenn gënatu la déedéet yow ci sa bopp kenn gënatula yaakaar yaakaaru yow ci sa bopp yow ci sa bopp yow ci sa bopp lu tax mooy yàllaa def ci alxuraan sa mbub mu woyof mi amatul solo sa sa sa mbubb mi setul mi amatul solo laafa bu euh, melut noona amatul solo déedéet yére yu setu di amatul solo ndax lan allama al quran allama quran bul ñeexati kenn ci colom bul ñeexati kenn ci am amam bul ñeexati kenn ci ndomba tànkam yow dañ lay ñee waaye waroo ñee waroo ñee kenn ndax yow dañ lay ñee lu tax parce que allama quran groupe boobu nga xam ne moom la lim boole ca mbokk yi ay ñi ci bokk ñi ci bokk waaw waaw alamal quran moo tax borom xam-xam yi daal di indi xam-xam mu tudd ulumul quran ñoom abu taha sunu doom jële ca cene ba waaw abu taha ibnu al ustaas muhammad eh, alin gay waaw rahmatullahi ali ci boroom xam-xam yi indi lu ñu tuddee ulumul quraan ulumul quraan mooy xam-xami alquraan nga xam ne doy na sëkk ab liggéey akum njàng doy na sëkk sa dund gi yépp nga def ko ci jàng koo xam ko laaj ko oustaz Mokhtar Sylla hmm? waaw waaw tabarakalla lu am solo la waaw allamal quraan waaw waxoon naa dimbu arrahman ak arrahim arrahman nuun nuun gi tëjut arrahim miim gi dafa tëj suñu boroom jël ñaari lettre yooyu arrahman ak arrahim bu ci nekk lettre ba ci mujj laa yi ma doon jàng yépp ñaari lettre yooyu képp ñoo ci ñëw mbokk yi karim mooy mujisatul islaam alxaalida alquranul karim mooy mujisatul islaam alxaalida waaw mooy njombu lislaam mooy njombu lislaam ji nga xam ni du xewwi du sàppi du soof bu àddunay dox di avancer di ko yokk moom alquranul karim ab taar di ko yokk al ijaaz di ko yokk tële gu nit ñi tële indi ko alquran yàlla wàcce ko ala rasulihi muhammadin sallallahu alayhi wa ngir mu génne nit ñi ci lëndëm yi yóbbu leen ci leer li yuxrija naasa min adulumaat ila nuur mu génne leen ci lëndëm yi pluriel ila nuur ci lë ci leer gi singulier maanaam zulumaat fii jamu la ko def a nuur mu def ko mufrad mooy fu doom aadama nekk fu dul ak nuur mu ngi ci zulumaat adduna lépp ay zulumaat la genn nuuru fi nekk waaw moo tax nuur googu mooy alxuraanul karim ku ko génn yaa ngi ci zulumaat ma wax la ko tey waaw suñu cheikh moo ko daan wax boo xam ba noppi ni ma wax la ko tey jàngalekat boobu <laughs> jàngalekat boobu nga xam ne euh, day jàngal nit di ko former en distance en distance <laughs> allahu akbar ndax keroog bañ ko dencee ma ñëw ñu ne kaay kaay kaay tiim sa xarit sa sëriñ waaw sa formateur sa professeur allahu akbar mu ñëw tiim ko balaa bay laal jal bi ne ko tey lii la ma tey tey la lii tey la mas a am waaw ne ko lii tey la mas a am bakkat aynaaya li amrin lastu adriha fa qultu masa walam taftax li yafaaha ndeysaan alquran kon day génne nit ñi min adulumaat yóbbu leen ila nuur waaye day teg nit ñi ila siraatil mustaqim salawaatullahi wasalaamu alayhi di ko jot di ko jot li saxaaba di leen ko jàngal di leen ko firil waaw ginnaaw ñoom ay arab lañ bu araab wàccee buy daaneel ñuy xam léeg-léeg ñu àgg ci jenn laay joo xam ne bu ko salawaatullahi wasalaamu alayhi firiwut duñu ko xam hmm? waaw ndax alxuraan nun lay mel lu ko moy rek mu yem ak lépp lu ko mooy rek mu yem ak lépp waaw day am yoo xam ne day day lëgg-lëggi du nu ko xam ko defee ñu daal di koy jege a Cheikhaani Buxaari ak Muslim ak ñeneen ca nettalikat ya ñu ngi jële ci Abdullah ibn Mas'udin mu ne laay daa mas a wàcc laay jan laay ja nekk ca lan am juróom-ñett fukk ak ñaar borom bi ne allazina amanu walam yalbisu imaanahum bi dulm saxaaba yépp am problème chaqa dalika ala nnaas allazina ñi gëm walam yulbisu te jaxasewuñu imaanahum seen gëm nga bi dulmin ci tooñ ñu ne ah, kon de àdduna tukki na ñu ne kon àdduna tukki na walam yalbisu ñenn ña walam yulbisu ñu ne yaa rasulullah am nañu problème mu ne luy seen problème ñu ne ko wa ayyuna laa yazlimu nafsa kan ci nun moo dul tooñ boppam laay ji de gagloo nanu alayhi salaatu wasalaam mi nga xam ne mooy firil nit ñi bu bu jaxasoo mu ne innahu laysa alladi taanuun alam tasmau maa qaala al abdu saalix inna shirka la zulmun azim waaw ñu ne ko ahaka loolu dégg nañ ko mu ne innama huwa shirk waaw mu ne kon zulmu fii shirk lay tekki bokkaale saaba yi daal di fiix muy leen xanaa déglu leen déggu la jaam bu baax ba waxoon jaam bu baax ba mooy luqmaan dafa noonu doom ji inna shirka la zulmun azim zulmu googu mooy allazina amanu walam yulbisu walam yalbisu imaanahum bi zulm zulmu gee mooy zulmu gii kon zulmu fii tooñ lay firi ba tax ci xam-xami alquran kon kero ba lii jaxasoo dañ koo laaj alayhi salaatu salaam mu firil leen ko mu firil leen ko alayhi salaatu wasalaam ah, firi leen aaya leeg-leeg ak aaya misaal moom it ñu ngi jële ci muslim ak kuddul moom mu jële ci uqbatu bnu amir mu ne dafa dégg yonente ba alayhi salaatu wasalaam ca min barba ca min barba min barub jumaa ja muy wax ak jullit ya julli si woon jumaa di wax ak ñoom ci lu jëm ci jàmbaarook takk sa ndigg ak bañ sab noon yab la bañ sab noon bett la mu jàng laaja wa aidu lahum mastataatum min quwa wa aidu lahum mastataatum min quwa ala inna al quwa arramy ala inna al quwata arramy laaj ji ne waajalal leen seen noon yi lépp lu ngeen mën a waajal min xuwa ci force waaw force bu ngeen am rek bu mu leen bett alayhi salaatu salaam ne leen force bi mooy sànni force bi mooy sànni jàng leen sànni jàng leen sànni mbokk sànni yemul ci ak fett képp sànni ko waaye lépp lu ñuy sànni mën a dal ci asab noonu waaja loola ba du la yab ci ci farata yi la bokk waaw waaye nag bul jàpp rek ne mooy sànnib xeej walla fett ba xeex jot waaj ji yoruk fetal di la sànni bal ya nga ne yoruk fetal du sunna ci du sunna ndax yonent bi dafa ko woon daal di yor sab xeej maa sag fett moom mu yor ko mbaa walla bomb di la ko sànni yow nga yem calee di ko ko sànni boo muytul balaa yoor yoor a jot wala balaa tàkkusaan a jot dana am ku féete boor waaw loolu moo tax boroom xam-xam yi ci xam-xam alquran di taxaw ci yooyu di ko settantal di ko yaatal lool tabarakallahu rahmatullahi alayhi ca ña jafaatu asahabati ridwanullahi taala alim ajmain xëroon lool ci jàng alxuraan ay mag lañu waaye bëgg jàng alxuraan doon ko jël ci yonent bi alayhi salaatu salaam di ko fexee mokkal di ko di ko fexee dégg ku ca raw rek daal di am sharaf sharafun lahum waaw ku ca raw rek am teraanga waaw ku ca raw rek anas mu ngi nettali kaana rajul minna isaa xara al baqara wa ali imran judda fiina nee ku ca masa mokkal baqara mokkal ali imran rek da am cër ci nun doon ku màgg ci nun nee na ku nuy màggal ku nuy fonk ndax kii daa mokkal baqara mokkal ali imran mu yéen kii mokkal baqara ali imran teg ci nisaa yeeg maaydat lan am ak lan faal ak tawba di dem ba minal jinnati wan naas kooku moom lu mar a nekk anas netti la la de nee na kaana rajulu minna ida qara al baqara wa al imran jadd fiina waaw daal di am cër bu mag ci noonu lu tax parce que dafa mokkal baqara dafa mokkal al imran ma ne ko ko ca ku ca teg leneen nag ku ca teg leneen nag ku ca teg leneen nag waaw allahu akbar xool adduna ni muy def léegi ay gone ngi mokkal alxuraan ba nga xam ne muñ ci mokkal ko paas paas yi alxuraan yi dañ koo mokkal waaw ba muy ubbi paas ne ko paas bi ma toll fu mu tàmbalee mu ne la baat sàngam nga tëj ne ko paas sàngam nag muy la baat sàngam arab yi amoon nañ ko doon ko puukare woo tabaarakallaahu ci fan yële waaye Sénégal am na ko as ngoone su jigéen soo xam ne tabaarakallaahu waaw boo ko laajee ñoom abu jëndal fële ca mbuur hmm? noonu ñu xére woon ci jàng ko ñoom saaba yi noonu lañu xere woon ci jëfe ko jàng ko mokkal ko jëfe ko taxaw ci ay atteem ñu ngi ne nettali abu abdurahman eh, asulami muy wax ne xaddasana alladi kaanu yaq yuqri'uunana alquran ka uthman ibnu affan wa abdullahi ibnu mas'ud wa xayrihim innahum kaanu ida taallamu min annabi asra ayat lam yujawisuha xatta yataallamu ma fiha min alilmi wal amal qaal fa taallamna alqurana wal ilm wal amal jamian axrajahu abdurazaq eh, fi ma maanaahu nee na moom abu abdurahman nee na ña leen daan jàngal alxuraan usmaan abdulahi masud ak ñi mel ni ñoom jàngalekati alquran ya sëriñu daara ya waaw sëriñi daara ya di san mel ni abdul xaaji abdul asi turé ca fas turé ab ibn affan sëriñu daara la woon abdulahi masud sëriñu daara la woon Hmm? waaw bu ñu daan jàngal alxuraan daawuñu jël lu ëpp fukki aaya daawuñu jël lu ëpp fukki aaya fukki aaya lañ daan jël jàng fukki aay yi ba mokkal ko jàng jëfe ga hmm? waaw ndeysaan fukki aaya lañuy jël yem ca kepp jàng ko ba mokkal ko yem ca képp waaye nag jàng jëfe ga ñu daan boole jàng alxuraan ak jàng jëfe ndax jàng alxuraan bu ànd ak jëfe information la jàng alxuraan bu ànd ak jëfe information la bu ànd formation waaw mbokk yi maa ngi ci suuratu rahmaan maa ngi ci aaya deux arrahman alxuraan maa ngi ci ulumul bi alquran di wàcc sallallahu alayhi wa sallam joxewutoon ndigalu nañ koy bind li may wax ni ñi ci teewe ci euh, c 3 yaatal mbindum alquran tabarakallahu ñoom sëriñ Cheikh ak ñi koy jàppale c 3 euh, bu mbokk mi ñëwee bay introduire yëf ya xam-xam yi daana ko indi ca jataay ba waaw yal na yàlla sàmm ko waaw yonent bi daawul joxe ndigalu bind alxuraan wala boog daawul joxe bind dara lu dul alxuraan lu laa bëgg a wax ndax bu ñu bindee hadis bind alxuraan ñi leen xàmmiw jaxase leen te yonent bi jox na alxuraan cër boo xam ne du ca boolee waxam abu saidul xudri ma ngay nettali mu ne yonent ba moo ne waan laa taktubu anni wa man kataba alay anni gayra alquran falyamxu waaw wa xaddisu anni wala xaraj wa man kadaba alaya mutaamidan falyatabawa maqaduhu min annaar abu said nee na yonentu ba daf leen waxoon ne bu leen bind li may wax bu leen bind samay wax képp koo xam ne kii bind nga leneen loo xam ne du alxuraan bu dee ci àll wa na nga ko raxas bu dee ci kayit na nga ko effacé bu leen neexee nag waxtaan ci man amul benn problème wala xaraj bu leen neexee waxtaan ci man waaye ñiy waxtaan ci man képp ku ma ci fenal na yëg ne sawaraangi koy xaar hmm? dina gën a sawar koy xaar loolu benn garantie la bu am solo bu mu defaloon saaba ya benn tëkku waaw mhm. sallallahu alayhi wa sallam nag ñoom ci saaba ya ah, di jàng alquran di jàngale di jàngale jëfe di jëfe ba ci xilaaf ak abubakarin saddiq radiallahu anhuma radiallahu anhu wa xilaafatu omar usmaan usmaan bnu affan e, ñu tàmbali di gis lu jar dajale alquran ci xew-xew yaag yu nu demee ñu daal jël kaamil ba woon ca moom daal di boole kaamil ba woon ca ñu daal di jël kaamil yi boole leen daal di koy bind ñu bind tudde mbind ma arasmul usmaani ñu tudde mbind ma mbindum usmaan keroog la xam-xamu alquran tàmbali ngir yaatal arrahman allama alquran waaw ngir yaatal arrahman allama alquran waaw laqad jumi alquranu karim awala jamcin fi ahdi alxalifa abubakar sadiq radiallahu taala anhu ca ba maarakatul yamaama jeexee xëy na bind yi di ñëw dana ci yaatu ndax maa ngi ci arrahmanu allama alquran maa ngi ci ulumul quran xam-xami alquran yi waaw xam-xam ba daal di daal juddu rasmu daal juddu ñu tuddee mbind ma arasmul uthmaani yi waaw al uthmaani yi eh, ci xilaaf ak Seydina Ali radiyallahu taala anhu ndax ku ci nekk ci saaba yi war nga am loo rôle boo def abul aswad addu ali eh, ñu digal ko mu teg xawaayidu naxwu ndax e, ñu mën koo ñoŋale ñu mën koo noŋale ak nutq mooy tudd alxuraan waaw règle yooyu daal di ñëw masque gi fii la war a nekk masque gi warta nekk fii bu masque gi nekkee fii yàq maanaam baat mi baat bi buñ ko waree rafaa ba noppi Euh, jar ko mu yàq maanaam yi suñu xàmmewut mubtadaa yeeg xabar yi yàq maanaa yi buñ xàmmewut naat yeeg manuud yi yàq maanaa yi hmm? ah ñu commencé ko maas nag a ah, ilmu iraabil quran daal di tàmbali muy beneen xam-xam iraabul quran daal di tàmbali muy beneen xam-xam waaw mu ngoog mbokki maa ngi ci suratul rahman maa ngi ci aaya deux arrahman allama bay Moodu Jaxate maa ngi ci allama alquran mhm. ah, sahaaba yi tàmbali ñoom tam maani alquran yi ñu nekk ca di ko toxalaka jàng déggin ya mën naa ñàkk tolloo ndax ñi wuti luñ am léeg-léeg duñ tollooy ndab waaw ñu tàmbali nag asahaaba tàmbali di ko tafsir di ko leeralal seeni gaay yi nga xam ne ñëw nañ ginnaaw ga alxulafaawul arba ca lañ bokk muy abubakar omar ak usmaan ak ali wuutu yonente ba ca njàngale ma nekk ay sëriñi daara nekk ay tafsir waaw ibnu mas'ud bokk ca ñooña ibnu abbas bokk ca ñooña ubay ibnu kaab bokk ca ñooña zeyd ibnu thabit bokk ca ñooña abu muusa al ashari bokk ca ñooña ak abdullah ibnu zubayr ñoo ñépp ay yi daara lañu woon gàcce ngaalaamaa ñoom yéen itam gàcce ngaalaama yéen sëriñi daara yi yéen dongoy daara yi yéen yaayi daara yi bi asaxaaba alkiraam jeexee taabiuun ay ñëw taabiuun ay ñëw am na ci ñoom mbooloo yoo xam ne ca saaba yi lañ jële daal di jël di tafsir lenn ci aay yi ibnu abbas ca makka jàngale ko tub alquran daaraam ja am ñu ca génne said ibnu jubayr ca la bokk mujaahid ca la bokk ikrima ca la bokk te mawla ibnu abbas la taawus ca la bokk ibnu kiisaan al baya al yamaani ata ibnu abi rabax ca la bokk ñu nekk ay sëriñu daara yoo xam ne ñu ngi génne ci daaray abdullahi ibnu abbas ca makka hmm? daaray ibnu abbas ca makka Eh, Ubay ibnu Kaab nekk sëriñu daara ca Madina waaw Ziyaad ibnu Aslama génn ci moom Abul Aliya génn ci moom Muhammad ibnu Kaab Qurtubi génn ci moom xam-xam alxuraan nag tàmbali nag di tasaaroo nag di wër àdduna nag di wër àdduna ba ni mu agsi sunum réew tabarkàlla mag ñi jël ko waaw euh, jàng ko jàngale ko jëfe ko ku dëkk ak ñoom roy leen ci mbokk yi yal na jàmm yàlla nekkin ak seen njaboot maa ci suuratu rahman arrahman allama alquran maa ngi ci allama alquran mbokk yi alquran li ma doon wax ni mooy xam-xamu alxuraan alxuraan dafa bokk ci baaxu yàlla gi xéewalam gi wàcce gim wàcce alxuraan ndax bañ a bàyyi nit ñi ñuy gëlëma ko lëndëm ak palamtoo ko wër mën nga wër ba jóge fi doo gis waaw kenn fàttiwul discours bu Serigne ba ca gàmm ga ca at yu yàgg ya waaw laqad manna Allahu alayna ndeysaan waaw nun ñëpp nu xam <laughs> léeg-léeg ñu nekk ca course ba rek ndeysaan eh, Cheikh Moustapha daat ba mu jeexal rek ne asalaamaaleykum nun ñëpp nu xam ma ne Oustaz mbay na ñibbi waaw mu nga alxuraan yàlla indi ko jox ko mustafa sallallahu alayhi képp koo xam ne kii danga doon palamtu mu ñëw jàpp sa loxo moom alxuraan teg la ilal birri yóbbu la ci mbaax waaw moo tax maam jane maasikan bil kitaabi maska dariri bi yadil qaaidil bashiril muayni waaw maasikan bil kitaabi bi maskat nee na silmaxa bu nekk ca place de l'indépendance ca Dakar dix-huit heures jot ñépp génnandoo mu bëgg a jéggi ci place bi dem ci banque bi collection yi jàpp te waa ji silmaxa la nee na bu jenn waa ñëwee jàpp ca loxob silmaxa googee bëgg koo jéggil tali bi nee na waa ji du du cof loxol waa ji du jàpp ca baaraam ba dafa naan ko caq nëb ko ndax bu ko rëccee oto yi rey ko loolu maa ko maa ko jëm a misaal ba mu jege nogay maasikan bil kitaabi maska dariri bi yadil xaayidil bashiril muini waaw maam Cheikh Al Hadj Malick ca wasilatul mun naa bàkk ko sama gaay yi almustarchiduuna nuurun mubiinun atan nuural mubiina li irshaadil ibaadi jamian rabbi allahu moo tax alxuraan ne rusulan mubashirina wa mundirin li allaa yakuna linnaasi ala laahi xujja baada rusul sunu borom nee na bi ma yónnee yónent yi ku layoog man ma yey la bi ma yónnee yónent yi ñii mubashirin ñii mundirin walla ñu boole ñaar yépp ku ma layool ma yey la allahu akbar waaw lay amatul ba dama ci suuratu nisaa fa ngay fekk wax jooju waaw ca suuratu nisaa ca ngay fekk aaya jooju Mhm. mbokk yi nit ak niteem nag nit ak ne ci kaw suuf di wër lu ko niteel eh, bi mu dajeek ki yàlla mujj yónni salawaatullahi salaamu alayhi mu ne ni ma mel maak yónent yi ma jiitu mithli wa mithlul ambiyaa min xabli ni ma mel maag yonent yi ma jiitu mooy jenn waay bu ñuy tabaxloo ab bâtiment wala ay gaay yu tabaxloo ab bâtiment gaa yooya nooxun moo ca jiitu fondement bâtiment bi yëkkati pieds yi gasa gas ba nangam ki liggéeyam jeex contrat jeex mu wàcc bi mu demee Ibrahima ñëw continuer ko ba fam yem mu wàcc contraam jeex bi mu demee Moussa ñëw continuer bâtiment bi fa yem mu jeex contraam jeex mu wàcc bi mu jeexalee Isa ibn Maryama ñëw continuer bâtiment bi bi bâtiment bi desee nag nga xam ne li mu des foog am ku ñëw mottale ko yonent bi alayhi salaam nee na fu waa gaa yi jaar rek ah waaw tabax moom ni lañ koy bàyyi fa jaala naasu yatuufuuna bii nit ñi di wëri bâtiment bi naan waaw ima bël bi ni lañ koy bàyyi di wër rek ku naan immeuble bi ni lañ koy bàyyi wa yaajabuuna min naan ah bii de sawaay lii rafet na de ay wàjjile lawla haadihi labina waaw lawla haadihi labina waaw ah lii de moom buñ buñ ne woon tegg nangam fii nee na loola ñu naan ku ko ne fu woon teg bati baa bi mat mu ne amu ah, ne man mieux <laughs> sallallahu alayhi wa sallam waaw su fekkoon ca tànt ba la dama leen fott su leen waaye wax waxam ji rëy na maag yonent yi ma jiitu woon maag yonent yi ma jiitu woon noohun ibrahima moussa isa yonent yooyu alayhim salaatu wasalaam dañoo bëggoon a tabax benn immeuble bu tudd al islaam al islaam ka njëkk a jël liggéey ba tabax ak alif dooro note ko bindal alif muy nooxun bi ibrahima ñëwee tabax laam alif bi muusa ñëwee tabax siin bi isa ibnu mariama ñëwee tabax laam alif ah boo ne al islaa yam ca ku fa romb rek héetitit yatuufoona bihi wa yaajaboona minu ay waa jile bi baat de ku ci dolli woonuk miim wala ku ci doon la waru araf nee na man mii maay araf woowee sallallahu alayhi man mii may araf woowee al islaamu mu tax ba mu ca noppee jël document ba jaar ca yonent ya ko doon tàmbali liggéey ne leen bâtiment bi mat na kon signé leen fii mu yóbbu ko ci ki doon tabaxlu bâtiment bi immeuble bi mu signé ko fii ñu daal di fay jaar mu mu fekk leen baytul maqdis daje fa ak ñoom seen daje bu rëy ba sajadal kullu israaw ka waxaamu Abdul Aziz Mbaye <laughs> waaw ndeysaan xaramun xallahu karim wa imaamun ndeysaan seet mu jël ko dem jox ko sala subhaanahu mu tamponel ko in diina inda laahi l islaam demal nga wax leen ko inna diina inda laahi al islaam demal nga wax leen ko fal quraanu risaala risalatullaahi ilal insaaniya kaafa alquran message la bu jëm ci nite Oustaz Tahirou Fall nee na message la bopp lañ ca fàbbiwut ma ngay defare ba tey waaye nee na bu nu góorgóorluwut dañuy bi mission bi defloo ko lu ko taxutoon a jóg mu dugg ci leneen lu bokkut ak moom la ko taxoon a jóg nee na loolu mooy fab bi fab bi risalatullahi il insaaniya kaafa def loo ko leneen luñ koy def loo maa ngi ciy ñëw mu tax kero bi alquran wàcceek sunna qul yaa ayuha nnaasu inni rasulullahi ilaykum jamian tabaraka allazi nazala alfurqaana ala abdihi li yakuna lil aalamina nadira waaw noonu la deme de ndax kullu nabiyin yubaatu ila qawmi xaasa mu ne wa buistu ila naasi kaafa yónnente bu nekk dañ ko daan yónni ci bokkam mu ne man nag yónni mu samay bokk ci ñëpp lañ ma yónni ndax ñëpp ay samay bokk mooy seen bokk borom bi ne ko hee neel hee yéen nit ñi yónnente bu yàlla laa bu jëm ci yéen ñëpp na xam ne yàllaay ki nga xam ne moo wàcce alquran ci jaamam li yakuna lil aalami nadira ngir mu mën a fàttali ñëpp ngir mu mën a ñëpp mbokk yi bind bi jeexut teg leen seen baaram foofu maa ngi ci arrahmanu allama alquran maa ngi ci alquranul karim ginnaaw bi mu jógee ci ulumul quran ñaar yëpp lañ bokk àndale ndax borom bi moo ne arrahman daal ne allama alquran yéen ñi nekkul di jàngal quran dal leen yéen ñi féregul ijji liifantu leen waaw yéen ñi féer ijji commencé leen a jéem a mokkal lu waay yóbbu doyut ci alxuraan karim waaw lu waay yóbbu doyut bu leen dem Makka ak Madina ñëpp jël jukki mun leen a jël ëpp naa def jaajëfal leen jaajëfal mboole ku ñuy déglu ci biir réew ci bitim réew jéggul soxna yeeg sëriñ si ñaan jàmm ci réew mi réew yi kóor ki nekkoon ci moo di seen mbokk Pape Abdoulaye Dieye ci kanam tuuti ñu bàyyi leen su mbokk Alaaji Sëriñ Mbàkke si la ci jotaayam bii di xamtu yàlla yàlla sàmm nu sàmm leen aar nu aar leen yàlla yàlla defar seeni mbir defar suñuy mbir te def ci suñuy poos dara wa axiru daawaana an alhamdulilahi rabbil alamin wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu lahi wa barakaatu lahi wa barakaatu lahi wa barakaatu lahi wa barakaatu